musuma accompagne accompagnement qui ce qui s'est fait tout seul ah hein? samay événement it non laa ko non. Hein? ah mais damay def ben, je parle en parabole damay gërëmaale le ministre de la culture aussi bien actuel parce que je vois qu'elle est accessible message la ko nous mu message New wax maa ngi message mais il est accessible donc je parle. parce que moom mooy suñu moy suñu ministre tutelle mu nga xamanteni moy nek nekk suñu diggante ak suñu njiitu réew donc may ma may xamal sénégalais ni ah ko accessible la gisee guñu nag mom moom toggaguñu ah euh, li nga wax ni ubbi na sama xel dina ko bind message bu direz mu yobbu ko lettre mu yobbu ko lettre d'accord si le gouvernement peut faire quelque chose alhamdoulillah sinon euh, wali à l'habitude d'aller d'y aller seul parce que une salle mythique comme Adidas Arena. Wally Seck ba mu doon def jersey premier président Macky Sall daf ko recevoir woon. Hmm. ndax bii mun nañu xaar sax président Bassirou Diomaye Faye mu recevoir Wally parce que salle bu toll nii euh, du la première fois benn africain te tegu ko war nga mun a am benn soutien total euh, venant venant des autorités étatiques. waaw mais xam nga euh, bi ñu président Macky di recevoir loolu c' était via les promoteurs. promoteurs yi ñoo ko ñoo ko dox boobu c'était euh, man ak ay sénégalais ñoo doon def événement bi promoteurs yi ñoo ko dox euh, ñu dem mu recevoir ñu ah na ma demal si réew mi ñëwaat d'accord mais bii aussi euh, promoteur bi c'est pas un sénégalais mais le chanteur c'est un sénégalais xaw ma exactement comment ça va se passer lépp lu ma la wax ci loolu rek du ma damay damay wax ñi pour tâtonner mais xamaguma est-ce que.

Eh, di la ñaanal yàlla aussi si li nga jëm la set mu nga am si ndam parce que boo si am ndam amiin euh, man ñaari question rek laa parce que 17 ans de carrière su ma juumul depuis 2017 nga commencé sa carrière 2000 2009 2009 ataa commencé nga woy boo juddoo je crois mm. donc ba tey euh, Wally mi ngi percé wax dëgg fa neex yàlla sénégalais yaa ngi koy bëgg nga dem ci euh, arena Adidas arena mu nekk espace bu mag a xam ne jeux olympiques yi lañ ko inauguré sax su ma juumul février 2024 mm. donc amagul artiste bu fa joué nekk 9000 places euh, Wally yàgg na ak def loo xam ne mbiru defi la maanaam Wally dafa ñeme defi euh, ndax ndax nan la ñuy xaaree Wally ci événement bu toll noonu parce que 9000 places bëri na bëriwul mais ci dëkk jaamu ngay dem rawatina mu nekk salle bu bees leneen lu ñu gis aussi mooy yaa ngi koy wax léegi mooy Amady def na lu rafet ak ñoom Baye Jall mu mel ni da bëgg a yóbbaale ndaw yi nga xam ne ay artistes lañ ci réew mi pour jaayale seen musique parce ne ñoom Benjamin ñu ngi koy euh, bi mooy 2008 euh, ñun boobu ay xale lañ mais dañoo amoon mbégte kontaan gis suñu ñaari papa ci kaw suñu papa ak papa Youssou ndax mun nañ xaar ren incha allah décembre bu nekk invité d'honneur le set boobu Sénégalais yëpp di ko doon xaar yéen ñaar sur scène. waaw mën na nekk kay mën na nekk kay mën na nekk kay alors xam nga hmm, euh, euh, nit buy doog a yeewu moom yëppam du ñëwagum. damay leen di ñaan rek su ngeen di posé question mu nekk benn par benn parce que après dama bëgguma bëgguma bëgguma mel ni ku kii parce que maa ngi doog a yeewu may ñaan ngeen posé moom question benn par benn demaatal ci sa question bi. sama première question bi dama si ñëwaat. 2009 mm. sa carrière ba 2024 macha allah. Mm. boobu tey Wally c'est un homme def lu am solo ci musique te Sénégalais yëpp am nañu respect ci yow. da mm. jël lu mel ni Adidas Arena Adidas Arena ñu ngi ko ubbi février pour les olympiques yi yaa ngi ci njëkk a def nga nar ko jaay drapeau Sénégal mais gis ci biir loolu ci projet bi lu am solo euh, waa Ramadan di ko def lu ci mel ni Amady euh, Baye Zal wala Benjamin di invité ñi nga xam ne ay jeunes ci ay projet da nga bëgg a yóbbaale ñooñu pour ñu jaay li nga xam ne mooy culture Sénégal par rapport suñu ñooñu. waaw si possible si possible bu ci xajee rek si possible ñu def ko ah si possible su fekkee jàpp ñi nañu ah war nañu mën a dem ñu bëgg réew mi. parce que man li li lii sama walla ci musique bi je pense que maa ngi ci yoon bi ah te man rek mënuma ko ah maak sumay rakk maak sumay mag maak sumay nawle ñu ko mën ah. beneen question bi nga doon wax yaa ngi yaa ngi yaa ngi wax affaire ah, Dio ak ah, grand Pape Diouf écoute man waykat laa boo xamante ni biñ may wax koo bëgg dama leen ne Pape Diouf boobu suma baye mi ngi dund suma rakki baye ñi ngi dund ñoom ñëpp day kat sama kàddu démb moy suma kàddu tay il fait parmi des plus grands chanteurs d'Afrique romain du Sénégal africain là. la wax la voix de Pape peut aller très très loin baatu Papa Diouf mën na wër aduna donc duo mom fierté la ah invité ko mu ñëw fierté la mais aussi il y a aussi bi nga xamante ne ñun moo ñuy dundal ku la mën a nekk beneen événement bu gën a grandiose bi Dakar Arena dañuy dem du ah, ah, ma jum ah, Arena Adidas Arena dañuy dem coppati rek ah naa mu am événement boo xamante ni mën nañ boole Papa Diouf Wally Barago Seck Sidi wut salu quarante mille places ah Sénégal yëpp ñëw ñu toog ñun ñëpp ñu bégal diaspora bi bégal sénégalais yi ah presse en ligne bi koy c'est possible donc loolu loolu au moins ñu xam ni sax ñun jaay nañu dara ah mais nak yéen dañ leen liñ leen di may dafa bari dañ ñëw rek ah di yooyu kërti kërti mais ça doit pas ça doit pas se passer comme ça bo dem Europe wala nga dem États-Unis ah ñi nga xamanteni ni ñoo yor langue musique bi bu ñuy def dara dañ leen koy jaay dañuy dem préparer ko petit à petit togg ko

comme nee nga ñu benn benn. moom hmm? euh, euh, mooy récemment seetlu nañ que ni une vague de futur nii ngay accordé la jeune génération beaucoup de Sénégalais se posent la question qu'est-ce qui se passe projet la wala Wally moom moo xool booy yi nga xam ne actuellement il faut le ba ci ci musique bi te am nañu ñu contacté leen pour def ak ñoom futur ci jublu. ak benn par par benn. ñëw la mooy question bi la. waaw parce que dañoo gis featuring yi nga def ak ñoom yëpp. c'est très rare nga de featuring yëpp doxandoo mais kan mooy projet bi ak kan moo nekk ginnaaw projet bi ba ba ba nga am euh, li tax ma def featuring yi yëg-yëg la li ma la wax aussi lu dëgg la ci man man maa ko yëg.